ربنا كلاما يطيرنا نسيا بلا حليب مؤلف برم توبا سقير بلا كلاما يطيرنا نسيا بلا خسير عليم مؤلف murid bi daa bëgg kalaaman yubayyitu nasiyan bi daa alimun muallaf saqiyun bi daa mane Seex Bamba yaqini ilaahi wa huwa kulliyati yuhyi بجاي رسول الله يمخنا جوخ يا خيني الله وكل أتخيا بجاه رسول الله مخرجا نبك بجاه رسول الله بجاه رسول الله بجاه رسول الله مخرجا أخيا بجاه رسول الله بجاه رسول الله يا رسول الله bambay jaamam jaam sayir la jaam baatin moo waral moo dem xaala la waral jaawaat rakki bambay jaamam jaam sayir la jaam baatin moo waral sayir la jàmbaatin moo waral moo def xaa jóg leen màggal gaawaan rakki bambay jaam sayir jàmbaatin moo waral wax leen jaam sayir moo waral moo def jaam sayir jaam sayir moo waral di wax baax jaam nabi dem na bac suma danaa fata dalaa diggante digganteem ak yàlla toll ne xalaat xotti ko lu ko a néew mu ne teg am ku naa ko amaamaka uddunu uddunu amaamaka amaamaka sa kanam sa na bi dégg kii wax tax gisul kenn sunu borom na ko yëgsi nga fii mooy aras daa ngi wax man benn kàddu da nga may nuyu Moustapha xamul mu nuyoo sunu borom yàlla ne ko maa la jàngal mi ni nga may nuyoo wala bi di ko fay la génn guddi mu dem ci borom bi ñibbi si avant fajar sëñ Bamba nee na ni day bu ma yeggee màkkatal mu karam soo ko waxee Abu Jahil du ko gëm mu ne ko waaye boo ko waxee Abu Bakar dina ko gëm kon ngëm sëñ sëñ Basiiru Mbàkke li wax dëgg la ngëm ci xol lay ne al imaanu bil xalbi wa nutqu bi lisaani wala mal bil jawaarihi rasulillahi moomee nag ba mu jógee ci yàlla xam nga mu ko jox julli jaamu yàlla yëpp ñëw ci kaw suuf julli ñool màkkaa ko jëli maa na jaay mu xam ko lool dew ma këram pour ndakaaru pour wax ko nangam ak nangam dama ko wax léegi ne bi may dem màkk ñëw naa sa sa bureau jotuma la mu naqadi ko lool ma ne ko nag dem naa ak jàmm dikk ak jàmm ka ma yow nga ne ma loolu bu ma ko yëgoon mu jot si bu may dem jox la sama numéro xam nga ànd bu yàgg dëgg la ànd suukar ak daqaar bu neexee rek suukara ali xam nga dof du gërëm sëriñ bu junj ko léegi dof du gërëm ku añaan du gërëm ragal du gërëm dof loo ko defal mun a dama ko yelloo ku ragal dafa na ne bu a waali aali du ma may ku añaan moom du doon sang ba mukk kon lii ngeen di defal aali yàlla même pa yàlla na yàlla fayal leen seen bopp xuj de sàkkaa ñun ñu bokk moom benn bay ma ñun ñii ñëpp famille bépp nga koy sant di ko gërëm seetaa ñu ci dara ku feebar mu yóbbu la seetewoo faj la te sant naa gërëm ndax sama tànk bii ba ma daanee moo ma jox xaalis ma dem sétéo rajo bu ñëwee dañ ma opeere ma daw dégg nga la ma soxla képp ku soxle ci famille bi dara boo ko jooyee la mu fajal la ko lu mu bëgg ak lu mu dagaan ñoom ñëpp famille bépp ñaan naa ci yàlla julli ci yonent ba ak jëmbi Sëñ Tuubaa yal na yàlla guddal soobu fan lii ngay mébét di ko def yal na yàgg lool yal na fi yàgg ci wér ci kàttan yàlla ak yonent ba ak rasulullahi ku baax nga ñàkkoo kañaan sa ndey da daa wax aali xujja loo xam bokk koog sa jigéen ñi amuloo lam doon sa jigéen ñi toujours loolu la koy wax mi ngi nii du ma fen toujours da koy wax moo ne na sama yaay dee na sama fuu ci jigéen ñi la ma neex laay def ku ma yaakaar doo yore dërëm waaye deful du change caractère foo ko fekk mi ngi cal mu ne rek na nga ko nuyoo daal noonu la la noonu la noonu nga ko bàyyee bu fa dem gannaaw kon nag ñaan naa ci yàlla sama rakk yëm tey maa fi mag ñoom ñëpp maa leen mag tey waaw kon nag maa ngi leen di sant di leen gërëm maa ngi gërëm sama doomi bàyyi yëpp yëpp yëpp yëpp yal nañ fi yàgg ci wér yal nañ fi ci wér yal nañ des gannaaw suñ gannaaw yal nañ fi des te maam Ceerno Biraay moo xoon géwalam ba wayal jàmbor ab di jeey waali faama gireen joxu njaay waali njaay tas tasami ci gàngu bi gireen dem ba ko jegee Babacar ma koddu gireen dem ba jigéen sa maam nee na woon mere mandik mën a waaxu ko gën si tax pendum saar lat mbor a yaago biir biram joome kumba kilifay buur yi nee sëriñ Bas Mbàkke mi. at mu jot moom lay wax waxal. at mu jot moom lay wax waxal. bu waxee man dootu wax. bu waxee moom dootu wax. mooy man maay moom. mooy moom mooy moom. sëriñ Sidi mii. sëriñ Sidi mii. sama digganteeg moom. diggante moom moom. du lu may wax. du lu muy wax. Sidi def na lu 30 ans nee moom moom def na lu mat fanweeri at. lim ma xamal. lim ko xamal. ñi ma ko xamal bariwul. lim ko xamal bariwul. li ma ko xamal. lim ko xamal. ñi ko xamal bariwul. Siidi mooy man maay moom. Siidi moom mooy moom. ma gis bés bu at jot bu bés bu ñëwee. bés bu ñëwee. tey fii li ma leen doon wax rek sama waxi démb mooy sama nee la leen doon wax démb waxi démbam mooy wax tey. lépp mbàkk mbàkk yeeku. lépp mbàkk mbàkk yeeku fi def. sëriñ Bas wax na dëgg ñëw na sama bureau. ne sëñ Bas wax na dëgg ñëw na bureau. na ma nag bi de dem na. nag a de dem na. mën na ko sëriñ bi jéggaloon naa la. mën ko sëriñ bi jéggaloon naa la. mën na ko mukk bul waxatu loolu Ali. mën na ko maa ngi jéggul. kon nag lépp loo xam ne teraanga la. lépp luy teraanga. ñoom ñoo ko fi indi. mënoon na ne li ñu fa def lépp li fi def lépp jaru ko woon lii fi ñëw doy na sëkk mbooloo mu ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm. gi nga xam ne doxoon naa ko seen papa. ne seen papa. sëriñ maam Thierno. muy maam Thierno. maam Thierno moom daf doom. maam Thierno da koo def doom. ma demee këram. bu demee këram. maa ngi moomay nekk si néegam. moom ay nekk néegam. ñoo bokk lu ñuy lekk. ñoo bokk lekk. ne ceddo bi bul toog suuf xamoo ko. ne ceddo bi bul toog suuf xamoo ko. sëriñ Sidi mii la ma wax seede na. sëriñ Sidi mii la ko seedaloo. mii laa koy seedal. moom mii la koy seedal. lu si bari. lu bari suñ seydi addina bi yëpp addina bi yëpp lu mu dox moo ko fekk moom mii moo koy identifié ay malaakaangi ko tiim sëñ seydi mii man moom day léppam xam na ko kii nag magama nee na daf ma war a jox addiya. nee na da koo war a jox addiya. addiya jooju du ma ko jël. addiya jooju du ko jël. Sidi Maxtaar nag moo ko waxoon. sëñ Maxtaar ko waxoon. dafa ñëw di yees lu boppam. sëñ Sidi Maxtaar moo ko wax. ne dafa ñëw di ye di di ñaan di jébbalu si moom mu ne ko jokkul sara rakk ji. mu ko sëñ bi. mu ne ko sëñ bi déet. ma ne ko grand waxal. mu ne grand waxal. sëñ bi ne ko mais kii màggee naa ko lu mat fukki at ak nangam. mu ne sëñ bi kii màggee naa ko lu mat fukki at ak nangam. maa ne la nga dem rek jébbalu si moom. mu ne mu ne maa la wax rek demal jébbalu si moom. mu ne ma dama laa war a jox addiya. mu ne ko dama laa war a jox addiya. mu ne ko duma ko nangu. mu ne ko duma ko nangu. mu ne ma koo nangu. kii. moom laa def moom mooy sama kilifa. mooy kilifaam. man moom mooy nangu addiya. man du ma nangu addiyaam. sëriñ bi wax na ko. sëriñ bi na ko. nee naa ko delloo naa la. ko delloo na la cër bi. jërëjëf jërëjëf. may nuyu nag dafa am ñoo xam ne nekkuñ si bâche bi. ne dafa am bokki boppam. nekkul si bâche bi. muy waa Fuuta. Fuuta. délégation bu mag. def nañ délégation bu mag. ñëw bés bi ñoo ñëw tim. ñooñu it fi ma jaar ak ñoom fi mu jaar ak ñoom ak li ma séq ak ñoom ak li mu séq ak ñoom yàlla la koy seede ñu baax ñu baax lan donc am naa fa sama nit xam ne am na fi ñoo xam ne doom lan ma jàppe doom lan ko jàppe def ma doom def ko doom muy lu dëgg si ñoom te muy dëggu li may wax it. li muy wax it seede baa ngi nii ànd ak moom dem Fuuta du benn du ñaar du ñett loolu. bu ñëwee fii bu ñëwee fii jógee Fuuta ba fii war na leen a sant gërëm leen bu ñu jógee si loolu. bu ñu jógee si loolu. man nag sama mbokki jolof yi dinaa leen yéen mbokki jolofam yi mi leen di gërëm. parce man nag aw ma lu dul moom amul lu muy jolof. dama bëggit waa jolof. dama bëggit jolof. jolof laa bëgg parce que jolof la fii sama lépp fii la. nee jolof la bëgg jolof la xam léppam fii la jolof. jolof lii xew mi bu ñëwee. ne. guddi lay ñëw guddi lay ñëw. bu ne suba la mbir mi bu ne suba la mbir mi. lay ñëw fii lay ñëw fii. day ñëw rek tëdd. bu ma ñëwee bu ñëwee. la fekk lépp pare. lépp pare sëñ Sidi dana fi def ñetti fan jiitu ko fi def lépp sëñ Bass moo ko fi jiitu mbooleeg magam yi ak rakkam yi ñekk fi ñu dox lépp ba mu sotti day ñëw rek dugal loxoom lekk wala mu tëdd nelaw kon loolu dana leen ko gërëm dana leen sant ñaan yàlla nan ko def ay déwéni déwén amul lu mu jolof amul lu mu ñu leen di sant di leen gërëm sëriñ Cheikh mii. nee Cheikh mii. sëriñ Cheikh mii. nee sëriñ Cheikh Awa Balla mii. da koy sant di ko gërëm. Dakar laay toog. Dakar lay toog téléphoné tel jour quel jour bés bii lañ koy def li si war mu taxaw dox ko wax ko ba mu ba mu àgg maa wax loolu war na koo sant gërëm ko di ko ñaanu yàlla jërë ngeen jëf ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp kontaan na daal kontaan daal mënut a passé am na aussi ay délégation yu jógee am na délégation yu jógee Dakar ñëw ba fii dakaar sori na yoon wi neexul yëg nag mënut a paase loolu. dama ne la sama yaay li may seede si moom mooy bi mu toogee mu ne ma kaay dama laa soxla ñu toog ñu waxtaan ma ne ko waxtaan wi lan la mu ma ñaan naa la yàlla lenn su ma génnee àddina bu leen ma suul Dakar ma ko mais Dakar moo ñu gën a jege chaque vendredi wala chaque jour mën nañ jaar sa xabru bi di la ñaanal foofu mu ne ma déedéet. yóbbu leen ma jolof lingeer gi ma leen juree woon da ngeen màgg ba toll foofu foofu ngeen may yóbbu parce que su ngeen ma suulee fii jolof day gent te jolof lan leen xamee jolof ngeen am mais li ma leer te leer ma mooy bu ngeen ma yóbboo foofu xaw ma kan mais bu dee benn fan si at mi sax da nga ñëw jolof ngeen ziare moo tax ma bëgg ngeen yóbbu ma foofu loolu mën naa ko seede si moom. danga ma maire bi bu ngeen mësaan a ñëw Jolof nan daan ànd yow ci yoon c'est xam nga su maire moom boo génnee Touba nga ñëw ba Daara Jolof ay mbokk ma nekk foofu muy xataal yi muy sagata Jolof muy Mbàkke Baari muy eh, Diyaali Darma ay nijaayam ñoo sant dëkk yooyu bu ñu ñëwee ba xam ne passé nañ Dakar eh, Daara kër Alaaji As Njaay nijaayam mu ne jeex na samay mbokk jeex na nan dem nag ngeen wan seen mbokk man samay mbokk wan naa la samay mbokk jaanal samay mbokk ba agsi fii parce que dëkk bu ñu jaar da wax na jàddal fii fii sa maam Saliou fi nekk jàddal fii fii sa maam Amar Xale nga fi nekk jàddal fii fii sa maam Alaaji Aasi fi nekk jàddal fii fii la caar mooy seen dëkku cosaan mun ma caar gii wàllu yàlla moo fi tëddoon kooku boo gisee ñun suñu mbokk yi ku gaañu ñu yóbbu la caar kii dañ ko suul fii ñu ne ba guddi ay gileem ñëw jël bàmmeel gas ko si bàmmeel bi yóbbu ko te wàllu yi kaamil la woon moo tax ñun ki jur sama yaay ki ko jur ñoom ñëpp ñu ngi leen suul caar googu si yoonu Jolof dem na ba ma yóbbu la fa yow mii donc loolu moom mooy lim ñu daan won ak dañu ko jàngal pour ñu xam suñuy mbokk sama yaay moom dafa bëggoon doom bu ne képp kuy mbokkam nga xam ko nga xam li nga bokk ak ku ne donc moo tax mu ne ma yow mbokk jolof nga jolof moom amul foo mënta taxaw say mbokk ñoo wër jolof loolu nijaay fenti mi mën na koo seede moo ma ko gën a xam bari bari bari bari ah, fu ma nekk rek mu a ma ñëwal wax nijaay ñëwal la may wax nee naa leen si biir néeg ba dafa mënal boppam ba pare xam nga nee naa leen du ma leen wax dara te kii dafa wax léegi si baayam xam nga maram dem ba yaayam wàllu la Kamal maas la rek ak Ibrahima maas moom lañ yóbbu mbëllëxe Ibrahima lañ yóbbu afi ah, moo jur ngaañ xëri mu jur safiyatu yaay Alaaji Abdurasi sëriñ si dine naa bi mu santee yàlla borom bi jungi julli ci Seydina Muhammad mi sang-sang yi maa ngi nuyu mbokk yëpp di nuyu waa Linguère yëpp li ma amoon yéene wax ko defe naa ni sëñ Basiiru Mbàkke mu sëñ maam Ceerno wax na ko li ci gën a solo sëñ Basiiru wax na ko mooy waxtaan wi nun ñëpp la teg ci siraatal mustaqim fi ñu sëñ Bàmba tegtaloon ñu war cee jaar bu loolu amee defe naa ni bis bi kon mat na sëkk bis bu mel nii ñaanal soxna Marème Ñang ku nekk bëgg nga bis bi sa ginnaaw ñu taxawul la ko kon bu ko amee jële ko ci doomam di Ali Ndiaye at mu nekk bis bi gën a yokku mbokk yi taalibe ak dëkkandoo yi teew ñépp taxaw war nañoo sant yàlla ci loolu waaye Ali Ndiaye mii nag war na gën a sant borom bi tabaraka wa taala am ku mel ni maam Thierno muy sët maam Thierno mu yebal njabootam gi ñu teewe nii. am ku mel ni sëñ sëtu sëñ Gaawaan. am ku mel sëñ Gaawaan muy sëñ mi toog. am ku mel ñu ñi bàyyi ko Fuuta ay sëriñ yu baax bàyyi ko Fuuta ñëw. loolu day da sant yàlla. fekk fi koo xam ni. sëñ Cheikh Awa Balla Ndiaye ma toog di kilifa di boroom xam-xam ñu fekk ci dëkk bi. am pasteef lool ci ne mu taxawoo waa dëkk bi ci yoonu murit loolu rek doy na sëkk kon aale ñu ngi lay dellu di la gërëm di la ñaanal waaye nag li ñu fi wax yépp yaa ñaanal sa bopp nag maa ngi sant mbokk yi di sama doom yi waa kër maam Thierno Birahim mu daaru ma naan di mbokk di sëñ si di jiite leen ak xar yi bàyyi koo dakaar muy ñoom joxaana mali toog ak Ousmane Kane ak Cheikh Amar ak ki xam mooy Khalifa Ale Ndiaye di magi Ale di taalibeem Ale nangu ko waaye maam Cheikh Sidi Muxtaar a ko wax Ale maa ngi lay xamal ne yoonu murit ay sëriñ nekkul ci ay at ci ndigal rek la ne nee na magam nee na magam di taalibeem nee na la ne lim ma wax ne sëñ Cheikh Sidi Muxtaar na ko ni looru ci man Cheikh Sidi Muxtaar def ko ci ut ko caale bul ñëwati ci man newal ci ale aouzu billahi min alcheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala asraf almursalin sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu ci ndigal ak ci kàddu sëriñ Sidi Mbàkke moom sëñ Ibrahima Ndar moom maam Cheikh Anta borom gaawaan mi nga xam ne moo fi teewal sëñ maam Thierno Mbàkke fii ci Linguère ci bisub sunu wala de sunu xarit sëriñ Ali Ndiaye mu teewal fi sëñ maam Thierno ak sëriñ Sidi sunu mag mi nga xam ne noo bokk sëriñ bi ak sëriñ moom sëriñ maam ak sëriñ Modou Mahfouz di jiital ci nuyoo bi sëriñ Cheikh Awa Balla Ndiaye mi nga xamante ne nii. moom mooy xalifa sëñ Ousmane Ndiaye fii ci Linguère ak sëñ Waly Ndiaye mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Baba Yacine Ndiaye ak mboolem askanu sëñ baaba ak soxna Maram Ñang di sant yàlla sunu borom bu baax di julli ci yonent yàlla mi nga xam ne moonu may nu teewoon fi daaw teewaat fi ren teew bis bi nga xamante ni Ali daf koy def di ko defal ñaari waajuram euh, daaw ak ren fukki weer ñaar la yàlla sàmm nu ban teewaat fi kon noo koy sant ndax bare nu ñu fi jógee te Eh, ay pexe ñàkki pexe taxu leen dem nu ñuy fi des bare pexe bàyyi woon fi ndig coobaral yàlla rek moo nu fi bàyyi kon nuy sant yàlla ci loolu rawatina barki démb rek sunu kilifa gu mag gi fi jóge di Seex Sidil Muxtaar mi fi nekkaloon Serigne Touba yal yàlla yokk leeram noo ngi koy ñaanal yàlla fam ne yàlla yokk ci moom ay xéewal ak yërmaane ak um njëggal ak mboolem kilifa yi nga xamante ne nii jiitu nañ ko di rakkam Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Baara Serigne Abdoul Aziz Amin ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al ak mboolem kilifa diini sëñ Ibrahima Niass ak jullit ñëpp yal na yàlla wàcc ci ñoom leer ak yërmande di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba bu baax di am mbégte ci teew ci bis bii nga xamante ni ni ma ko waxee bisum ñaan la te ñaan Serigne Touba dafa wax ne day jariñ kuy dund di jëriñ ne ci bàmmeel yi di yokk ab di indi ab yool eh, ki koy defit di ali ànd koog magam waali ak mboolem askan wi di ko def ngir ñaanal seeni wajur loolu di farata ndax yàlla sunu borom kat bi mu nu bindee ngir nu jaamu ko rek moo taxoon. it eh, moo tax mu wax ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun lenn it la wax ne du ko jéggale ci bàkkaar mooy ku ko bokkaale waaye bi mu déglee ci alxuraan ne wa abudullah wala tusuku bihi la wa bil waalidayni ihsaanan rek la ci teg kon nag ñaan farata la rawatina defal ko say wajur ndax wajur moom ginnaaw bu yàlla wéyee moo gën a yay lépp ndax yonent bi sallallahu sax dafa wax ne yàlla lim koy lim may wóolu wóolu ak li ma koy doy doy yaar wóolu mu ci muy diggante nit ki wajurum ak miraas kon nag waajur moo gën a rey lépp kon bu bu ñëwee fii ngir di ñaan ay waajur sunu wëlëre sunu xarit di ko def loolu noo ngi ñaan liñ fi ñaan lépp jàng ko fi ci alxuraan yal ko yàlla nangu jotale ko ci yool ba ak mboolem julli ñoom fekk ba sax nga ña koy fekk li ci dolli ko rek ni ma ko waxee mooy nu war cee eh, jàjjuwaat bu baax xam ne ñaanal ko fi bàyyi ko moo nu fi daje eh, kilifa yi fi bàyyi ko barki démb yi tàmbali ko sëñ Sidi Muxtaar moom ma wax léegi li mu war a def ci nun mooy nu delloowaat suñu bopp ci yàlla dugal yàlla sunu borom góorgóorlu ci jaamu yàlla sunu borom te di ko jaamoo ci lislaam jim nangu muy diine dëppale ko sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ndigal Sëriñ Tuubaa te xam ne ni ko Sëriñ Maam Cerno di waxee tijaan doo nekk ne kon nag nañ góorgóorlu ci jaamu yàlla te yar njaboot gi ci diine xam ne ay ñu xam ne ay jullit lañ xam ne ay murid lañ sëñ Tuubaa mii sunu yaakaarit nu bañ koo tuumaal bañ ngee tuumaal mooy nekk ci li mu digal te bañ a topp sunu bakkan sunu bakkan yi li mu tànn du li nu gërëm waaye li ki yàlla tànnoon li mu digal rek loolu mooy yoon kon nan góorgóorlu ci lanu alxuraan noo xoon ne wa maa ataakum rasulu fa xuduhu wa maa nahakum anhu fantahu nu jàpp ci sunna si yonent bi di jaamu yàlla sunu borom te sax ci ak jub te xam ne sëñ Tuubaa képp ku ànd moom te yaakaar ko ne murit nga li la war mooy nga nekk ci ak jub sëñ Tuubaa li mu digal mooy jaamu yàlla ak liggéey di dund sunu ñaq askor bu bëggee liggéey ci àdduna bu bëggee dund ci àdduna ak dund dundam sell te ñoŋ day nangoo liggéey tey bañ yàq waaw borom daaru musti ne àdduna day soppeeku lu na ci biir mu soppi la wa tilka ayaamunu daawiluhaa bayna naas waaye yaar rek la du soppi mooy nee na nu àdduna mën a mel gor su nangu liggéey te du yàq faaw mu am teraanga jullit bu ragal yàlla te nangu ko jàmm allah bu dee ah, bu demee bis dana mucc kon góorgóorlu ci jàmm yàlla te njaboot gi lislaam te jàngal leen te te yii xew nu ban caa bokk bañ a tuumaal sëriñ bi bañ a tuumaal sëriñ bi mooy nekk ci li la neex ba noppi buñ la waxee nga ne sëñ Tuubaa amul morom ku jébbalu doo dem sawara ku di murit doo dem sawara képp ku di murit te nangul sa njëbbal doo dem sawara waaye njëbbal gi sëñ Tuubaa dong nga koy nangu kon nag na fexe ba sëñ Tuubaa nangul sunu njëbbal sëñ Tuubaa du nangu njëbbal ku dul ki nga xamante ne daaw ci jub waaw ni ko sëriñ Ndongo Mbuub ñoom ñii di waxee ci rajo beeg télévision bi ki nga xamante ne nii kuy waxtaan ci sëñ Tuubaa na nga wax li la sëñ bi wax te bañ wax sa waxi bopp sëñ Tuubaa de su ko campagnal de su ko waxal lu mu waxut de su ko nel lu lu lu lu lu waxut te képp koo xamante ne waxal nga ko lu waxut day baat boobee képp mën na laa yóbbu sawra waaw ndax waxal wàll yi lu mu waxut moom waxuma laa ko toll ne sëñ ci yàlla boromam dara àdduna jëru ko kon nan góorgóorlu sax ci ak jub tey liggéey di dund sunu ñax di jaamu yàlla te di ko sellal te bañ a euh, nekk ci leneen la ca dolli ko mooy noo ngi sant bu baax a baax a baax sëñ Aliou Ndiaye ci taxawaayam ci bis bi di ko ñaanal yal na yàlla gërëm li mu doon def lépp te yàlla bàyyi ko fi mook ay magam ak i rakkam may leen fan wu gudd wu ànd ak ba li mu yéene ci bis bi yéene ci njabootu baayam ak kër ndeyam yàlla defal ko ci la kawoon jotam ci rajo yonte bi sallallahu alayhi wasallam barkeb sëñ Tuubaa noo sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant ak njabootam soxna Xadi Mbeng noo ngi koy sant bu baax di sant ay doomam Abdou Khadir mi nga xamante ni yàlla def na nuy jëwriñam ci sëñ Tuubaa di sant ay rakkam di moor ak buri ak xale yëpp noo ngi leen sant leen gërëm di sant mboolem ay xaritam di gërëm bu baax sëriñ Sidi Mbacke mii fi teew taxaw bis bi taxawaay bu rafet boo xam ne benn taxawaay gënu ko féete kaw ak ñi di xaritam di njàmme joxaani Ousmane Kane alaaji ndongo mii fi teewoon ànd ak euh, alaaji Taal alaaji Ibra Dieng alaaji Ibra Ndaw ñoom ñëpp ñu taxaw di sant mbokk nijaayam ji xamante ne nii saa yu ñu fi fi mu taxaw ci bis bi taxawaay ne benn féete ko muy sëriñ ñang ak waa Linguère gépp noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom fekkelu na ko déwén yu bëree bëri di la sant yow itam alaaji sa taxawaay ci diine ji sa taxawaay ci yoon wi ji sa taxawaay ci say xarit da nga xam ne kóllëre suñu borom moo wax ne waa awfu bil ahdi innal ahda kaana masuulan lu mat a sàmm la lu mat a jàpp la kon nag lii ngay def noo ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan suñu borom la nga semb ca ngol-ngol yal la ko yàlla àggale ci barkeb sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf asalaamaaleykum waaw kon euh, ñi ngi nuyu mbooloom yëpp alaaji di sant yàlla di julli ci yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa li ñu yàlla dimbalee tey ñu fekkewaat bés bi comme ni ñu ko fekke woon daaw di euh, màggal euh, ñaan gi nga xam ne ni moom la Ali di defal waajuram yu góor ak bu jigéen ah mbir mi nag li ñuy def rek mooy rafet njort te ñaanal yàlla Ali fanu gudd ak wér gu yaram ndax lii muy def nii euh, ñëpp war nañ koo roy ñëpp war nañ koo def ndax nit ki amul lu ay waajuram su yàlla dimbalee see waajur jur la ci farata yàlla ak sunnas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yar la fañ la war a yare nga màgg yàlla def ñu gunge la ba woon la ginnaaw mënoo def dara dara dara lu gën a rëy di leen ñaanal kon Ali li muy def lu rafet la lu baax la lu yàlla santaane la lu yàlla gërëm yàlla na yàlla jàppale may ko fa nu wud ak wér gërëm mu yàgg ko def ak di sant tamit mbooloo mi nga xam ne ñoo fi ñëw tey di sëñ Sidi Mbàkke moom sëñ Ibrahima Ndar moom maam Cheikh Anta euh, sëñ si ji nag moom euh, man damay wax ne maa moom li ñu bokk dafa bari ndaxte képp ku xam euh, maam Cheikh ant Mbacke xam ma si Joxaane mi nga xam ne suma papa ndax mooy suma mag yi bàyyi nga xam ne moom moo ko yar hmm? lu bare bari mu def ko ci moom kon bu fi ñëwee te se fekk maam ñoom sëñ Bass moom maam Thierno moom sëñ Cheikh Awa Balla foofu tamit damay santal yàlla ndaxte man Cheikh Ngoone Thialaw mi nga xam ne moo jur suma yaay sëñ Cheikh Awa Balla Mbàkke moom la tarbiya ba sëñ Sidi Moxtaar ci boppam seere ay seere yu bare bare bare yoo xam ne man mii maag moom ñoo toogoon ci biir néeg mu dem ko wax ci digganteem moom ak suma maam Cheikh Ngoone Thialaw mës na ma net lu benn histoire boo xam ne nii moom sëñ Sidi Moxtaar dañoo toog benn bis mu ne ma man sëñ Cheikh Awa Balla lañ ma tuddee man sëñ sëñ Cheikh Mokhtar moom mu njëkk wax loolu ci làmmiñam di ma nettali benn histoire ne ma bi nga xamee ne dafa nekk tout tànk maanaam sëñ Cheikh Awa Balla da ko yabal yónni ko ci bàyyam sëñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké daal di bind benn bataaxal takkal ko ko ci mbubam ndax mu njëkk ba gone bu ñu ko daan yónni dañu jëndi bataax dañuy bindi bataaxal takkale ko ci mbubu daan ne dama yóbbu ko diw mu yónnee ko ne ko boo nga joxal ma ko sa baay sëñ Cheikh Awa la moom moo yónni sëñ Sidi Mokhtar ne ko demal nga jël bataaxal bi joxal ma ko sa baay si Mouhamadou Lamine Bara nee na mu dem ba mu demee ba yegg si Mouhamadou Lamine Bara daal tekki mbubb mi jël xabaar bi daal di koy liir bi mu ko liiree ba pare sëñ Cheikh Awa Balla bind ci ne Mbàkke dañuy sàkku ñaan ci yow nga defal ñu ñaan ngir nawet bi kat ren xaw naa doy waar ñu bëgg nga ñaanal ñu ndax ndox am mu daal di bind benn mu jël bataaxal bi tontu ci ginnaaw bataaxal bi takkaat ko ci mbubam moom sëñ Sidi Moxtaar boobu sëñ Sidi Moxtaar mi ngi nekk tout tànk ne ko demal demal joxar ko sëñ Cheikh Awa bal mu daal di dëppaat ba mu yegsee sëñ Cheikh aw Balla daal di tekki bataaxal bi wëlbati ko sëñ Mouhamadou Lamine Baara ne ko bu fekkee da nga bëggati dara di ko sàkku kii ndaw lii nga yebal ku seetloo xolam lépp loo bëgg rek da nga koy am loo bëgg rek day seetloo xolam loolu bëgg naa ko seede ni ñëpp xam ko kon sëñ Sidi Moxtaar nekkoon na koo xam ne nii ñun xamuñu ko woon waaye nag yàlla nañu yàlla tas ci barkeem yàlla nañu yàlla may fanu gudd ak wér-gu-yaram yow El Hadj Tall lay sant bu baax a baax ndax émission bi ngay def ñëpp nañ ci jariñu man gisuma émission bu ko ëpp solo ci àdduna nit ñëpp war nañ koo faratal war nañ koo jàpp war nañ koo suuxal war ndax yaa ngi xamal nit ñu seen cosaan yaa ngi xamal nit ñu seen diine te nit ki amul lul diineem ak cosaan kon nag ñu ngi lay sant di la gërëm allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima